ci aussi euh, emploi bi euh, wax naa ñi que ne il faut vraiment lu ñuy defati ñu xalaat ko bu baax a baax mu ànd ak euh, cohérence mhm. parce que souvent dafay manqué benn benn benn chaînon ci ci mhm. chaîne lu tax muy manqué parce que ñoom dañuy xalaat taf yëngal la ñuy def moom la ñuy wax la politique des rustines mhm. boo gisee fenn senn rek nga taf daal di avancé après ci kanam tuuti affaire bi mën na teppeeku euh, fekk yow yaa ngi demoon ci leneen da ngay obligé ñëwaat ci ginnaaw pour tafaat ko loolu mm, mm. léegi nag boo ko xalaatoon de façon coordonnée yow boo ci pare rek pare nga ci mm-hmm. donc euh, yenn saa yi dañuy ñëw ñu ne dañuy dañuy euh, financer xale yi ñu dem liggéey ñu dem ñu créer seen entreprise mais xale bi boo ko financer mu créer entreprise am moom amul formation ah, mm-hmm. pour créer entreprise tu vois xaalis bi daf koy lekk daf koy dépenser ci leneen bien sûr avez une entreprise aussi vous créé bu vous vous une entreprise. vous mhm. amul fu produire ah, c'est-à-dire amul ay pépinière d'entreprise il xam ne dina fa installer matériel au début un ah, mhm. bureau pour produire mais vous du ci ah, que produire nous aussi vous dina fa c'est-à-dire euh, showroom le marché le centre commercial boo xam ne dina aussi du vous ah, aussi produire des produits exporter à l'étranger, dem ci salon yi clients à l'international, mais momit du donc dang koy du début à la fin ah, former ah, bureau banque d'investissement public bo xamné ne ka déjà promotion bi ñu wara genn bu business plan laaj leen bëgg ko financer bu leen financer ba pare bu ñu tol ci bâtiment bi ci top rek am na mhm. pépinière d'entreprise ñu installé fa seen machine état bi euh, soit mu abal leen ko wala mu luye leen ko lu yomb su mhm. côté bi tamit euh, mu defal leen fa benn marché wax fa la ñuy jaayee ku bëgg a jënd prix d'usine foofu ngay ñëw léegi nag ñu buñu jëndee prix d'usine yóbbu ko biir Dakar dem mhm. jaayee ko prix bu beneen prix euh, ñi nga xam ne mu ñu jógee Dakar ñëw foofu ñoom jëndee ko beneen prix mais mu am aussi benn agence boo xam ne da leen di dimbali ñu dem ci salon yu mag yi les euh, mhm. femmes clients et cetera donc mais monsieur monsieur Sidibé. faut commencer nga fin c'était sur votre livre que vous aviez écrit il y a il y a comment plusieurs années maintenant d'accord 20 ans Légui, de ce fait ok j'ai vu la question de madame. parce que li livre de prolongement livre bi la nek ni très bien moom wax tax ma bëggoon ñëw ci question bi. non limay wax ni lu bees la parce que dégg naa kenn di wax ne pour ma réactualiser limay wax ni très bien voilà ci livre bi pratiquement proposé wu ci emploi mais dama def diagnostic rek que ne. Hmm. Euh, emploi manqué na fa. Euh, et que côté économique buñ ko buñ ko dooleeloon lon xeyna emploi dina am. mais limay wax ni suma programme bi la nek d'accord voilà té lolu ben patch la. ci li nga hmm. xamné motax moo tax ma la euh, def rek. Euh, Donc nga koy du début à la fin euh, zone d'activité. Il y a xam ne on la bëgg créer Non, la ñu ko xalaatee. non je comprends bien yow yow li nga bëgg créer. ouais Moi, ben, nan la ko mën waxee benn processus bo xamante les jeunes ont les mains sur des rails. et qui avancent d'arrêt en arrêt. absolument première arrêt de l'île. la. lii la mu deuxième arrêt de l'île. la. exact troisième arrêt de l'île. jusqu'au but. Vous verrez j'ai un esprit très synthétique <laughs> mais très imagé. Absolument. c'est ce que je vois dans ce que vous nous racontez là d'accord mais là, c'est c'est c'est c'est très très beau c'est c'est très bien mais par contre aujourd'hui nous avons un gouvernement au Sénégal qui a ni effort par exemple les zones dont vous parlez maintenant sur les ay etc. zones humaines, mel non. ce que je veux je veux savoir moi, tey dans ce que nous avons jusque-là, je ne vous parle pas de gouvernement, je ne vous parle pas de Macky demain, je parle du Sénégal. Hein. Dans aujourd'hui, le Sénégal que nous avons aujourd'hui, il y a un manque de gis. Te manque d'après ce que vous avez dit, mm-hmm. l'anglais mm avec ce que vous venez de dire. Quels sont les manques Parce que il faut que nous démontrions une base. On, reste toujours en emploi. Hein. Bien sûr, oui. Voilà donc ci emploi man manque bi ma gis aussi mooy. oui ah lu ñuy jàngal xale yi ah ak ak ak ak li nga xam ne moo leen mën a wutal jox emploi méngoowul contenu enseignement bi moo tax ma ne. moo tax ma ne. Mhm. Ah, ma proposer ñu créer un grand ministère boo xam ne. Mhm. Ah, dafay am éducation nationale ci biir. waaw ah, dafay am enseignement supérieur ci biir. Mhm. dafay am aussi. Euh, formation professionnelle ci jeunesse parce qu'il s'agit de la jeunesse hein. ba am insertion professionnelle lu tax parce ah, que mhm. voilà ñi nga ne mhm. il faut mu nek la même personne bi nga ne parce que la même personne la même même organisme non mais vous grand ministère après il nit bi mën secrétaire d'État ñu jàppale ko ci euh, pàcc bu nekk bu ma wax. mais équipe am moom ak équipe am. oui ñoom ñooy toog chaque semaine euh, euh, di di di rendre compte président. ci mhm. ci seen bu ñu defee seen réunion hebdomadaire wala réunion réunion journalière. ñu mhm. xalaat naka la ñu mën a coordonner seen stratégie depuis jàngale bi ba xale bi fu muy liggéeyee. d'accord parce que mhm. lu ma bañ mooy kii jaar à U ah. ñiy jàngale. Mm-hmm. ñi ñi ñi nga xam ne ñoo war a toppatoo insertion bi jaar à ja mm-hmm. ah, du ñu mës a daje. dinañ dem bay waaja daje ñu ne ah ku nekk ne yow ah, loo def kii ne lii laa def mais ñu xalaat que li ñu def dafa waroo ah, boobu fekk na perte nañu temps perte nañu xaalis. Mm-hmm. voilà lu ma bëgg mooy ñoom euh, mu nekk benn mu coordonné ñu toog xalaat ko déroulé ko xale yi jàng-jàng bu mucc ayib. mu méngoog li nga xam ne moom la entreprise yi di xaar mën leen a jël. employé mais pourquoi pourquoi man ma ou nit wala organisme am ko ah. ce que vous êtes en train d'expliquer pour moi, ça ne se fera pas en un an, ni cinq. C'est-à-dire que c'est une continuité d'ensemble dans le temps. Mm-hmm. C'est un programme à long terme, pour ne pas dire très long terme. C'est-à-dire que pour nous aboutir au déjà, c'est au minimum une génération. au minimum. court terme, long terme voilà. Et donc, du coup, du coup, ce week avoir une continuité d'État, Une mm-hmm. à continuité dans le programme que vous proposez, mm-hmm. c'est des bases que vous mettez en place. Mm-hmm. C'est pourquoi que ça m'a ça m'a un peu dérangé, parce que nit qui dem. Non, cest j'aurais bien vu une base, une base très très claire, euh, définie bien sûr par le visionnaire qui est le président de la République et son équipe, mais posée base de nit moom lay topp nit buy dem fa la koy bàyyi. pour que cette continuité puisse puisse se faire. bien sûr vous menez vous menez ma nee benn nit xam nga forcément ministère ben nit moo Moi, koy mooy nekk ci bopp bi mais day am équipe. te te te Vous bu aussi l'État continue. tu vois voilà l'État état bi continuer mais keneen bu ñëwee daf koy parce que mhm. est ce que jotul monsieur Diallo ñu teg ay base quand même. parce que euh, ñu bàyyi ñu bàyyi taf yëngal bi ñuy def ku ñëw rek bëgg am un bilan matériel. Mhm. ñëw def tuuti rek bayi noonu te commencé wul fu mu war a commencé. Mhm. parce que bëgg na fi bayi dara. est-ce que jotul nak ñu kenn ñew tek ay base ñu xamné base yi balisé na yoon ba faw bu ku ci mhm. ñew dang ci jaar. et à la fin dina mën a mës am résultat. parce que mhm. même ki ko teg bu fekkee moom wu résultat yi. Ah, dinañ ko tôt tard dinañ ko tudd ci résultat yi. té té gëw ma ni sax nit dina dina am ben engagement bobu ba paré di soxla ñu lay tudd ñu lay baña tudd. yow lu nga lo soxal rek moy Sénégal je pense que quand nous lirons votre programme Inshallah, je pense que ce serait très intéressant de voir vraiment ce côté-là parce que je vois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur quoi d'accord mais il faut que nous qu'on passe sur d'autres sujets de votre programme oui waaw balaa may euh, dem nii dama a waxaat beneen xam long terme la nii ah. d' accord dama la wax boo ne. parce que euh, pétrole bi gaz bi mu ngi euh, pétrole xam nañ ne raffiné dafa am benn 10% pour cent nafta nafta raffiné tu vois résidu la moom euh, nga créer ci euh, ay petites et moyennes entreprises hein, tout autour de de de de l'exploitation du pétrole. Mhm. Euh, ci la défar ay caoutchouc ci la défar ay pneu. ci la mhm. défar ay ay ay d'autres produits synthétiques yu bëree bëree bëri. bu mhm. mën a defar kenn xamu num mu toll plastique yëpp. yooyu tamit xeetu liggéey loo xam ne ay ay créer ay entreprises yu ndaw yoo xam ne comme les dita yi nga xam ne ñoo am en Italie. nga xam c'est des entreprises même qui se nichent dans un garage tu vois mais Sénégal am lolu nit yi di ci di ci suturlu ah di di ci di ci di ci di ci exporter aussi à l'étranger tu vois te dina créer ligue yu bari mhm. lolu lu concret la lu immédiat mhm. voilà et que luma ma aussi aussi euh, Sénégal parce que société buy changer da ngay xol ban mouvement lay jël nga accompagner ko mhm. parce que bu njëkk ba bu ñu jugee ci indépendance tay ni kuti ci bëggoon liggéey loo doon ñaan liggéey nek fonctionnaire ngam la sécurité de l'emploi mhm. hein? voilà mais dañu dañu dépassé étape étape bobu parce que bo démé Sénégal da ngay xool ne ñëpp ñogi ngi bëgg a jaay ko gis mu ngi jaay ah même même ñi nga xamné dañu am liggéey sax dañuy seen bir bureau dañ fay jaay mm. donc lan la dañu dañu jugee ci société euh, ay fonctionnaire bëgg a dem ci société business li mhm. xew ci pays anglophone donc Sénégalais ñogi ngi bëgg xam maintenant l'importance de l'entreprise tu vois voilà créer une entreprise bonne mhm. là entreprise individuelle même taximan même même même même même euh, même le entreprise individuelle formation ku formation bi mu mobiliser nga former ko ci marketing taximan bi boko ci marketing ak euh, service clientèle relation client euh, bo vous ci ci euh, ci taxem mu jël ben bouteille CO ndox jox Sénégal Vous vous la ah, nga nga egg fu nga jëm tu vois ba nga abonnement parce que bo vous mun nga ni ko tous les matins ñëwal nga may jël si. vous gën ñom bo leen vous 10000 mille bëgg ñu c'est-à-dire que vous allez insister plutôt enfin en tout cas vous allez aider pour que service yi. Améliorer. amélioré forcément et ça améliorera les services que les clients resteront et que le développement de la petite entreprise individuelle se j'ai très bien compris j'ai très bien compris c'est pour ça que.